Kaolack amul lieu de divertissement Kaolack amul cadre de vie bu baax Kaolack suñu usine tëj na amul dara barki dem Abdoulaye Sow Kaffrine toog na conseil des ministres ñafe ba Kaffrine am loo xam ne Kaolack amu ko ah te Kaolack mot na ñetti yoon Kaffrine loolu gàcce la boo wàccul ci terrain bi yow am ah, monsieur le premier ministre wàcc wax ak responsable yi am base wàcc dugg sol sa kaki sol sa jiin porte port porte mais toog primature di jël ay femmes jël ay góor jël ay société ay ay mbootaay jël ay nangam 10 millions 3 millions 4 millions billahi lazi la ilaha huwa fu ñu jëm du neex ma ne feek feek moom Amadou Ba seetuwul Diène Farba Sarr feek moom Amadou Ba seetuwul Diène Farba Sarr man jarul mu may seet suma setul seetul jël sa nante suñ tee ba gis duñu xam bu geen bu am jom Pape malik bañ ko bañ ko ma ñëk ko dal mais monsieur Ndour des fois mu def ay erreur yu mag a mag a mag a mag des fois il oublie que c'est le ministre de la jeunesse de tous les Sénégalais et il gère la République Pape malik da ngay wara a erreur weesuul ngay dugg Kaolack di fi indi mille Jakarta te tàgg woo borom Kaolack mi nga xam ne c'est un jeune yow yow ba ngay joxe mille Jakarta yaa ngi nekk ministre de la jeunesse ak budget réew mi man ba may joxe ay deux mille Jakarta maa ngi nekk chargé de mission rien pas poste de responsable rien di ko jox Kaolack loolu en tant que un ministre de la jeunesse boo dugg Kaolack ool ki nga xam ne pour encourager ko. ne change jeune vous êtes le ministre de la jeunesse suñu ñun jël bañ chef dogal vous êtes le ministre de la jeunesse mais bul xol parti pris bul ak man nangam nangam dafa am yoon dafa am buntu Ousmane Nawel nako Ousmane ah yow de gis na né social, Ousmane gis né ne jakarta yi Ousmane gis naa ne sonn ko ci ñoom am naa sans jakarta bëgg naa ko dugal Kaolack nan la ñu defee. su ko defee ñu ñëpp ñu xàccandoor xoolandoor mais doo jël ñu la neex nga jël ab sans jakarta defal ko ut ci tur filmer vidéo te fekk ne loolu Kaolack waaye sax am na ci kontaan si c'est trop dama bugg yàgg wax ne nañ jàppale président de la République parce que il le mérite te ñu ngi koy jàppale du ñu lañ koy jàppale. wax naa ko barki démb ci mobilisation bi ñu def fii Kaolack nangaan ba Macky Sall di ñëw tout le monde pense que on a fait une très bonne mobilisation mais c'est trop mauvais mobilisation bu ñu def fii keroog ku gis xam ne du mobilisation bu baax ndax Kaolack en président de la République beneen ministre beneen ministre de la République moo nekk Kaffrine mobiliser loo xam ne ñun mobiliser wuñ ko donc loolu gàcce la les leaders de Kaolack yéen laay waxal nii nga ñu defee barki dem gis naa benn leader bu jël ay. 2000 Jakarta def ci budget bu rëy rëy rëy mais loolu munoo fexe ba Jakarta maa ne gëm la nga fexe 2000 Jakarta yooyu nga jël leen nga fexe ba lebal leen 30 millions ubbi leen entreprise ñu entreprendre jàppal leen ñu ibbi seen xol dugal la ci dugal ci Macky Sall moo gën nga la ñuy fay ay nangam génn 10 millions wala génn 5 millions parce que président mi ngi ñëw bu ñëwee ñoo ñu lekk ko boo demee ñu yuuxuwaat la parce que gëmuñu la.